ah doo déglu musique rare su may def entraînement lay déglu musique. ah d'accord, d'accord, je vois je vois ce qu'on va faire yow yow mii Bintou <laughs> ah. <laughs> on va prendre Jigéen Santé et puis on revient on va parler de Xessal. exactement toucher la lune taper les pieds sur terre je voulais. les petites minutes santé. Côté santé bien-être à 9h1 minute euh, dans la matinée The Morning King Bintou Lova ak euh, sama ñaari euh, coof <laughs> wax côté santé tay dañuy terminer at li nga xamné nek que dépigmentation ñukay wax xéssal à savoir quel traitement adopter malheureusement nak pour ñi nga xamné nek que c'est des adeptes de xéssal c'est assez difficile mm-hmm. mais il y a quelques trucs et astuces yo xamné que des solutions mën nga ko suivre pour gagner rapidement mhm. mais pas stade c'est assez avancé mhm. parce que comme Nico digital cher fay di à chaque fois image merci beaucoup mhm. dañuy gis que am que stade am cancer voilà terminal wala ñu am maladie yo xamné que malheureusement euh, d'autres donc tu es obligé nga que ko da ngay am benn que c'est Afrique

Euh, femmes yi nag boo leen laajtee traitement yi ñuy def traitement bi mooy que bu fekkee da nga teel a commencé xeesal mieux vaut que nga arrêté ko parce que gis nañ fi ñu bëri ñoo xam ne ne que dañ doon xeesal mhm. euh, ñu dem ba ci biir ñu xam ne ne que ça les arrange pas ñu bàyyi ko mhm. léegi nag loolu comme que la peau moom dina mën a bi adapté wat, mhm. dina delluwaat daal di delluwaat ci pot bi nga xamné ne mom nga yoron normal mhm. bob moy solution bi ñëk bi deuxième solution bi moy essayer de sensibiliser par rapport aux produits yo xamné ne wala pilule wala injection yi nga xamné nek mom que nañuy utiliser mhm. xamuñu fa lay jóge wala les personnes yi nga xamné nek ñu ngi koy def ñu ngi koy def d'une manière bo xamné nek c'est assez euh, occulte wala duñ ko wax kenn ñom rek mhm. ñoo am seeni secret mhm. voilà sensibiliser par rapport ak euh, ay photo par rapport ak ay message par rapport ak ay témoignages pour montrer que xéssal euh, baaxul dal benen bi moy que wone surtout que odeuru xeesal bi ça dérange beaucoup de gens surtout pour les hommes mhm. bëggu ñu xeesal waaw mhm. euh, xet bi xet bi neexul xet bi waaw bëgg xet bëgg na amna amna c'est vrai amna mhm. là je suis d'accord <laughs> mais xet bi ça dérange carrément surtout euh, produit yi nga xamné que ça coûte ay 500 wala 1000 mm-hmm. francs odeur bi mom c'est c'est atroce waaw mm-hmm. voilà ñoom top yoy non mm-hmm. euh di wax né que odeur bi mom franchement c'est c'est désagréable et c'est pas euh, lo xamné ne que war nga ko mëna supporter la sa ki nga nekkal wala ki nga xamné ne que mom ngay fréquenter troisième point dernier point bi moy que à chaque fois par rapport ak euh, xeesal rek. Mhm. ñuy wane li nga xam ne ne que moom lay def comme désastre c'est-à-dire que boo demee ba am cancer yeneen euh, yeneen yeneen yeneen euh, désagrément yu muy def sa yaram le fait que ñuy dindi sa ween bi. Mhm. wala la fait que sa benn membre yaram dem ba mhm. day impacté. par rapport ak li nga xam ne ne mhm. que mooy maladie bi mhm. moo euh, sensibilisation bi wala traitement yi loolu yooyu plus nga dem ci sa dermatologue c'est très important c'est vrai que c'est assez cher au Sénégal parce que ñu avons dañu naan amuñu moyen bi consultation vingt mille euh, buñ la bindalee ordonnance nga dem France ñëwaat <laughs> tellement que ça coûte cher mais dermatologue si c'est pour se soigner n'ai pas l'argent mais si c'est pour se dépigmenter j'ai de l'argent. c'est vrai. Euh, pour Lolo, le dermatologue peut te dire que bon, utiliser tel sabre ou tel produit, mhm. ça peut aider à ce que soit très sale carrément, ou alors mu atténuer ou alors ou garder ce pot Mais malheureusement, pendant toute la semaine, on a parlé de cressal. Mhm. On va dire que les jeunes filles vont continuer juste mhm. tout le temps que à bas âge les gagner commencer des cressal. C'est malheureux, mais bon.